juróom-ñetti junniy soxna te des na ko boole ci dëkkandoo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te mel ne ni ku jàng tawraat injil zabuur ak furxaan te it des na ko jéggal bàkkaaram yépp lu mu bari bari doonte dafa tol ne duusi géej gi te des na ko bindal itam tuyaabay jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at mel na ni ku goreel junniy jaam te bu bis penc baa des na ko ràmmuloo li ko soob ci ñi a dem safara te dana tàbbi àjjana dee su ko xisaab mbokk yi ku ci bëgg yeneen i leeral dangay dem ci xurratu ayni bu sëriñ Souhaïbou bu Mbàkke page 145 146 yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi